kenn mënu leen a yóbbu àjjana kenn mënu ko ku leen ko wax da leen di nax mënu ko yoru ko amul capacité bi dane kenn mënalul kenn dara kenn mënalul kenn yóbbu àjjana te nit mën a def mën a fexe ba nit di nekk yonent xanaa def nit yonent moo gën a jafe di def nit day yóbbu nit àjjana te Muusa bi mu ne suñu boroom a Haaruna axi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nu sabbihaka kasiran wa naskuruka kasiran innaka kunta bina basiran Moussa bi mu ñaanee suñu borom na Aaroona nekk yonent bi mu delloo ci kër ga fekk na Aaroona nekk yonent xanaa def nit yonent moo gën a jafe def nit def nit eh, mu dem àjjana ndax yonent bi sallallahu u wa sallam nee na yadxulu fi shafaati rajulin min ummati mislu rabiata wa mudar man daal dama defe ne ñiy weddi ñooñu daal yooyu daal mosuñoo jàng dara dara dara dara dara xamuñu dara dara dara dara dara ndax loo xam ne yonent bi saxal na ko alquran saxal ko xaddis yëpp saxal ko mu nekk ci téere nit ñu baax ñëpp ku ko dindi yenu nga responsa responsabilité bu rëy ndax yaakaar naa ne nit mën nay xamle di waare di yeete te bañ a gàddu benn responsabilité waaye génne nit kenn nit ci la mu nekkoon te xamuloo la mu doon te wóor la ne yaa sut ko xam-xam ñi nga xam ne ca ñooña la nekkoon nga génn ko ci bu ëllëgee bu la poñee ne la naroon naa texe ba ma nekkee ci béréb sàngam nga jële ma fa te yow yaa ngi ni amuloo dara tane woo ma yaakaar naa ne boobu responsabilité ko nangoo gàddu ñàkk xam dong la. suñu borom tabaraka wa dafa amee ay secret jaam bu mu ko yéene jox la ko te kenn mënu ci dara te aju ko ci lenn lu dul ci coobareem. yàlla ñi mu sàkk def leen yonent ba mu leen di def yonent jaamoo buñ ko defale buñ ko dara ñi mu def ay xajjam noonu ñi mu def ay yéefar ak i seytaane tooñe guñ ko woon defale guñ ko woon dara defa guñ ko woon dara ba mu leen koy def kon suñu borom ci coobareem lay def bu ma xamul dara ne kenn xamu ko réer